lu ñu fi ñëw tey mooy wane ni Amadou Ba mooy suñu candidat te ñun leader politique yi nga xam ne nii Kédougou la ñu nekk si région Kédougou ñun ñëpp d' accord nañu bokk nañ te incha allah Amadou Ba dina gagné soir le 25 février 2024 dinañ politique léegi lu ñuy wootee. leader politique yëpp nañu mbokk mbooloo taxaw pour liggéey pour candidat bi mais pour liggéey pour xale yi parce que xale yi Kédougou soxla nañu leen te loolu nag war nañ ci taxaw mbokk mbooloo du wax rek mais il faut que ñu jafali ko ci jëf yi tamit mooy ni que population Kédougou ñu ñuy xaar fu nga xam ne ni war nañu gis seen bopp te incha allah dinañ ci taxaw te loolu laa gis ci leader politique yëpp te incha maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Sénégal ñu ngi ne son excellence Macky Sall ku nga tànn kooku la ñu bëgg incha allah dinañ ko wan kooku la ñu bëgg moom tamit nag incha allah soit du 25 février 2024 ndax xam ne ni. Kédougou bi Kédougou moo woon yoon bi Sénégal gi yëpp Kédougou moo ko woon donc Kédougou war a nekk ci kanam